fii ak deux dañ ci war a wane yenn mbir jam ñaajo président daf ko def ci xolam te war na soppeeku war na soppeeku baax a baax je pense que président wala maire bi expliqué na ko et donc ñun tam dañ ci jàpp jàpp ci pour vraiment li nga xam ne moom ngeen bëgg yàlla def ko mooy stade boo xam ne rafet na

Mais monsieur le ministre, merci encore. jërëjëf tu as bien pensé à cette zone am nañ fi ku ne ministre bu ne ko fi waaye nak li nu gis ci yow la nuy wax te sañ nañ ko wax nag. nekk nga ministre délégué du pôle Yaangi ngi wala tolok presque trois millions diko def ci stade pour Bambilor projecteur xamna goudi ñun ñep dañuy football sax ci goudi gi. dinañ détailler convention bi ñu lié ak la DGPI c'est que la DGPI li wara def ci terrain footballu Bambilor lenn il ngay manqué gazon et ça ça doit être le ressort de la collectivité territoriale et monsieur le ministre je pense que si on parle de l'équité territoriale les moyens les ressources de l'État nous ko les ni mu qui qui est ci train se